joueur la laaj Messi moom laa supporté mais sa équipe Liverpool la. waaw léegi ñaata joueur nga xam Liverpool. Liverpool <laughs> xam bëri na. ñëwal ñëwal jox ma jox ma bu ne Liverpool ngay ngay ngay supporté rek limal nag. rek. xam naa ne xam nga Sadio loolu. moom Sadio Mané moom lu ah, waaw léegi ak ak ak ñëwal ak ak. lebal moom rek yow yaa ma gën a xam. méttiwul on avance question réponse la. Euh, kan mooy sa waykat Sénégal wër nga këpp waaw man moom Sidi Diop moom dama koy gët bu baax. Sidi Diop waaw. yow moom dama koy déglu da koy dégg. waaw <laughs> Sidi moom dama koy déglu. non mooy loolu mooy loolu maa laa jaatoon kan mooy sa comédien préféré Sénégal war nañu ko. ñaan ñaan ko ma. ñaan Fallama Allé. borom 100 francs. waaw ah, <laughs> moom mooy sa comédien préféré. waaw ah, mooy sa comédien préféré. Euh, série sénégalaise yi ban série mooy sa série préférée. non man ak yooyu noonu kii moom ah mais doo mën a un café avec fii wala. miri, miri. moom daal voilà voilà. wiiri moom daal suivre quoi. Miri, miri. waaw miri, wiiri. mooy sa série préférée. waaw moom daan nga ko suivre. D'accord. Euh, on avance ah. yaa ngi jàmm benn. maa ngi Samsam. sam yaa ngi sam sam. Mhm. Euh, tali kaw. Mhm. tali maam jaar benn instant dama naan euh, question bi ma lay laaj fii fan moo la gën a neex ci Sénégal ban koñ ban gox ban dëkk moo la gën a neex ci Sénégal. ronk moo dëkk ak delta ronk foofu fan la. waalo ne waalo moo gën a neex ci Sénégal moo la gën a neex ci Sénégal. foo am foofu moo la ko gën a. fu ma dem fu ne foofu laay namm parce que foofu foofu laa juddoo loolu maa laa jaar tontu. Mm-hmm. Euh, question bu lay laaj Sénégal bokku ci ah. ban réew moo la gën a neex ci àdduna bi pays boo xam ne dangay ngay réew un teg fa sa tànk. États-Unis d'Amérique. waaw da ngay rêvé dugg États-Unis. dama leer. <laughs> wallaahi booy euh, euh, do you speak in English. <laughs> non hmm? loolu moom ñëwagul xam nga dañ koy jàng rek. ok mais moom bëgg nañ ba. wala wala ma bàyyi ba nga dem ba ñëw. waaw da ngay bàyyi dañuy def émission ci anglais. Ah, dem ba ñëw. coono loolu lañ ko tegee nii après. waaw <laughs> mais beneen sax nga juddoo ba tey jii ma ak yow. ban jour moo la gën a métti ci àdduna ak jour boobu lan nga dund. non xam nga rek li li kii la moom sama métti àdduna moom wax dëgg yàlla. àdduna mbégteeg bànneex mi ngi fi mais naqar ak tiis des fois day teew béyti. mais xam nga des ma dal. waaw mais nag li la dal. waaw xool a xam nga ay jàmm yi. waaw lu ñu dal ne dañu dal sant suñu borom. moo tax lépp suñu boroom teg suñu teg suñu kaw rek. Mhm. luñ ko luñ ko métti du métti lu benn koor duñ duñ métti quoi. d'accord mais benn instant mënoo si jël benn rek partagé ko ne ma rek jour tel de. dund naa telle chose mais loolu métti woon na non xam nga rek affaire yi moom li ñu li ñu métti bëri na bëriwul xam nga. da ngay da ngay préféré esquiver question. waaw benn benn jour. ma xam ne sama sama yaay. waaw nga xam ne wàññeeku na quoi nga xam ne bokk ak sama yaay ndey baay. ok am benn mère. c'est ça jour boobu moom. am nga lu la métti. parce que da nga ko jege woon. wallaahi ñëpp la woon borom ñëpp la jege woon sax moom borom baax la woon. ñu koy ñaanal la. c'est ça xam nga suñu borom pare am na am suñu yaay. moom daal nga am la métti dëggantaan on avance on avance man laa jaar loolu. mais bi nga juddoo ba tey ñu wax yow ban jour moo la gën a neex ci àdduna ak ci boobu lan nga dund. li ma gën a neex si. àdduna. kii yaakaar naa làmb moom ko moom ko kii. làmb moo la ko may. làmb jour bi la gën a neex làmb moo ma ko may waaw. lan la woon lu xew. damaa demoon wax na sama benn grand. sama benn grand quoi boobu nag tàng nañu ko. kon dégg nga. dem benn tuugumaa foofu noonu. naroon bind mooy xamoon nu mu def nu mu demee noonu. après foofu fees yaanaam bind fu si des Modou Lo. lamb yi waaw naa ñu ko mu ñëw jël galaan bi. mu jël ko waaw mu ñëw jël nag bi. te loolu ñun xamuñu sax boobu. waaw boo xamuñu sax lamb xamuñu si lu bëri. mu bëree daan ñëpp. jël jël jël na nga kontaan. ma kontaan. ma xam ne kii dafa mën lu muy def quoi. ok te sa mag la. waaw su ma mag la. ok te te ci te di que ne segam sa grand frère mooy def loolu rek gars yi danañ xaar yow nga def lu. lu raw loolu. waaw ñuy dem di dem di dem bi mujj gi ñuy kontaan man ak moom. Uh-huh. pour man su daanee suñu bëree mu daan ma. Uh-huh. damay làqatu ne jooy ndax parce que billaahi wallaahi suñu bëree mu daan ma. contact contact. ñu ah. contact ñu mën a moom. Ah. suñu bëree mu daan ma damay laaxatu ñu cooy wala mu xam moom sax dina xam ne. Ah. jëli bi mooy daan neex man bëgguma ko ma daan. bëggu loolu. non non defet non non bëgguma loolu. même contact. waaw moo tax mooy faral wax man ku ma daan yaa moom parce que man bëgguma ko ma daan. dégg naa dégg. waaw li ma dugg ñu wane si fula. dégg naa la ragal yi. xam nga bu ma fooyee làmb. nekku ma ñëw nii bëri nii xam nga. Mhm. ànd ak tubaab bi noonu bëri. tasaaroo mhm. sa làmb ñibbi non non doxuñ ci loolu. dëggantaan dama ñëw bëri fula bëri fayda. lu mhm. seen na mu jàpp. Euh, sa bopp nag plat préféré boo xam ne tey boo demoon entraîné dugg ci gàllank nag affaire yi xëy neex nga kontaan yi la gën a waaw sa plat préféré. non man xam nga man moom. cër lu mu togg lu ne rek sama plat préféré sa bopp gars yi ñu lay seetaan. non mooy sa lu tënnu bañ daal laay bañ. déedéet déedéet. déedéet mën na xelal su ma jógee entraînement. waaw xam nga ñoo fekk joor fi nii. Hmm. mu def laax bi boobu moom dana ma neex. waaw laax. <laughs> waaw laax daal moo la gënal baax mooy loolu. mooy sa plat préféré. waaw boobu moom mu si dóor dóoraat. jeex na kon kay fan si xamee leen ko noonu. waaw ko invité mbay jënd na ko préparé la. waaw euh, on avance ah. benn sens dama naan mbër nga liggéey tekki dal ci am alal ju bari. lan nga ci njëkk a def. waaw teral si suñu waajur rek ak ñun yàlla boole nga xamante ne xam nga lii nii nii mooy loolu ah. ñii di bàyyi seen yitte yëpp yow mhm. su la yàlla dimbalee xam nga mhm. nga réussir may la li nga bëgg fekkee góor nga xam nga da ngay xalaat kenn bu wax mhm. mënul neex rek nga fàtte même bu dul làmb sax boo amee sax alal yu bopp ba nga xamante ne làmb may lu ko sax te boo nekkee xamante ni gore nga war nga xam ne yow ñi yeneen doon galère ndoo xam nga loolu moom mooy mooy mooy kii. war nga leen mën a gëstu. war nga leen mën a gëstu ñoom noonu parce que ndax ànd noonu la. ku tane dimbali sa morom. ah oui ah oui ku tane dimbali sa morom. waaw fekkee dañuy ànd rek. Mhm. yow boo amee beru. Mhm. xam nga moom gars yi ñu amee beru. loolu ànd du dëgg. mais ba récent aussi dama naan nga xëy un jour ñu ne la Mbaye Tine am nga benn baat ci réew mi loo tere ñu jëlee ko fi loo fi jëlee. korona bi. coronavirus. waaw ah, coronavirus xale nga bi wax nga fi wax mag. corona nga fi jëlee. corona nga laa fi dans seul mot rek question bi dafa tombé rek nga indil ma sa réponse corona li mu bloqué bari li mu yàq bari na. yàlla xam na ko. oh ba mu bàttee corona bi laa fi jëlee rek. corona na fi jóg. waaw na fi mais dama naan mbër euh, yi nekk ci kaw mbër yi nekk au sommet mhm. kan nga ci rêvé un jour arbitre sifflé génn seen diggante nga war a bëre moom ténor si. ci kaw ci kaw a kaw a kaw. non si kaw a kaw moom mooy loolu. mooy loolu mooy lan. waaw loolu moom xam nga rek dañuy bàyyi. non mais booy. gars yi nee nañu borom bitigu mbagg boo xar xol bi. waaw magasin nga fay fekk. Mhm. man yéen ñëpp je vous connais dama nekk ak yéen. Mhm. da ngay nekk xale bu ndaw nekk ci suuf di bëre mais xool day am benn ténor boo xam ne da nga naan non kii. kii bés bu àddu sifflé woon ma war a bëreeg moom <laughs> loolu man dama koy gis. waaw da nga koy gis. waaw léegi yow kan ngay rêvé un jour bëreeg moom. non ñoom ñoom ñoom xam nga ñoom ay champion nañu. te suñuy ganaane yi xam nga làmb xam na leen baax ñu mhm. leen di ñaanal kenn ku si ne rek nga eggal sa carrière quoi mais est xam nga ne yow ci deux saisons mën nga bëri dix combats dix victoires fekk leen waaw loolu mën ñu gitaa nga mais amul amul ci kenn koo xam ne da ngay rêvé da ngay bëgg di bëri ak moom non non amul bilaay yaa xam na ah, quoi non amul a mhm. euh, seen environ bi nii Fass Mbao mhm. ginnaaw ginnaaw raay Fass Mbao mën naa ne euh, jàpp jàmm gën est-ce que gis nga fi ay booy ay mbër yoo xam ne war nañ mën a téye làmb ci un jour. du jeex. gisee ko fi. du jeex. jox ma ay tur. billaahi comme kan. laas mi. laas man laas mi laas mi toog nii. laas. billaahi am nga yaakaar ne mën na téye làmb ci un jour. yàlla xam na ko. lu bëri bi te am. loo gis noonu loo non loo gis ci laas lu war a mën a tax nga ne war na mën a téye làmb. man làmb du ma seet dara si du ma xool gàllaaj du ma xool dara. Mhm. boo ñëwee entraînement. Mhm. am fit. Mhm. man tuuti bëri waxuma sax nga mën bëri bu baax. man tuuti bëri rek du mun a jombale dara si làmb d' accord. Aliou Silla. Aliou Silla. Tonnerre. Boy Silla. waaw Boy Silla Baba Jaxal. Baba Jaxal Jaxal mel na. Baba Jaxal champion la. dara booy naar awsa booy naar awsa moo ngi fi. booy naar man. booy naar booy naar jëli Birama Thior. waaw jàpp nga ne war na mën a am dara ci làmb. waaw am na suñu benn booy bu ne. kala ci kii lu tudd Tafa. Tafa Caatu Samsam. Caatu Samsam. waaw mbër la. mi ngi ñëw waaw ñuy ànd tey xam naa dafa liggéey ren moo tax fekkoo ko te ñi ngay lim ñëpp gis nga ni un jour war nañ mën a téye làmb ji. billaahi ngëm-ngëm la rek te ñun ñëpp xam nga. te ko. waaw gëm nañ laa ñun ñëpp ñun ñu nekk fi ñëpp. benn nañ xam nga te Karol fii man jaal yàlla dogal mënuñu bëraale ñu. xam nga dañuy war di yaatal xol yi dimbalante. dafa jaar xam nga di demalante di dimbalante ci seen biir kay. waaw na ku ci ne yéene sa morom jàmm. waaw ku ci ne yéene sa morom jàmm. jeex na man laa gis. xam nga ku ci ne loolu yéene morom nga ñaan yàlla la dal. Ah. nit boo dëkkaale moom loolu ngay ñaan. Ah. da ngay wax lu mu lu mu la yéene lu ne. yéene yàlla naa ci jiitu yàlla yàlla ma dal xam nga mais ànd ba nga xamante ne bu demantewu leen ñëwalantewu leen loolu neexul. xam nga te ñoom ñëpp ñoo far mm-hmm. xam nga te làmb dëgg la neex na foola mais làmb day jeex. Mm-hmm. di laale làmb day jeex si ay borom baax nañu. sant na fépp ay kontaan ma amul seen kenn xaamu yàlla comme que mooy taxaw ñu ko bëggee parce que loolu mooy te am na am solo. amul solo amul solo kon daal na rafet. na rafet waaw. waaw sa waa jéem xam naa ne naa ko gëstu après kii moom c'est que ne nga jàpp nga ni war na mën a téye laa bëgg non man maa ngi koy bàyyi xel sama boole mais nag xam nga rek dama ko desee xam quoi mais dinaa ko gëstu après mais benn instant dama naan mbër xam nga dañ naan série du yem ci benn épisode série ay épisode épisode épisode waaw jàppal ne Seydina ak Mbaye Tine tey le premier épisode mais warul yem ci tey n'est-ce pas mm-hmm. waaw di ma indi woon ci question jeex na lan ngay tàggatoo waaw santaat yàlla rek bëgg waat mafia bi bu baax waaw ñu ñuy bàyyi seen liggéey yëpp xam nga ñëw taawal taaral kii bi waaw di bëggaat suñu waa di bëggaat mbir yëpp mm-hmm. waaw foofu maa ngi bëggaat bu baax mm-hmm. di nga bëggaat di nga bëggaat bu baax a baax ñoom soñata gars yëpp bàyyi ma kenn mbër yëpp mm-hmm. waaw ku ci a ndaw a ah waaw di bëgg ñoom paal waaw moo tax man mbër du ndaw amul xam nga di santaat yàlla bu baax santaat sama ñaar waay santaat sama sëriñ Cheikh Makhtar di ko wax yàlla fi yàlla bàyyi bu baax a baax waaw di ñaanal suñu xale bi Cheikh Acha yàlla bàyyi ko bu baax a baax njabootu ko Cheikh Ousseyn bi yëpp waa Ali Baytu Rasul mm-hmm. bàyyiwuñu kenn ñoom ñëpp waaye nekk rek mm-hmm. ñoo lay bëgg bu baax njabootu ko Cheikh na sa saat bi Serif Asxaan ñu ngi koy bëgg bu baax waaw Cheikh Mafou ñu ngi koy bëgg waat bu baax a baax di jaajëfal ñëpp waa Ali Baytu Rasul yëpp waaw siyaara teewoon bu baax waaw demaat Touba di ko bëggaat bu baax waaw sama gars yi gis ngeen de c'était avec euh, Mbaye Tine mbaytin la waalo waalo mbaytin bu école de Bosco Sow moom lañ ñëwoon seet si tey mbër maa ngi c'est comme j'ai l'habitude de le dire bëggatuma mu sumeeku taxaw ci géew ñu ne kii kala mais bu sumee koo taxaw ci géew nañ ne baytin na ngi nele nee na gars yi nañ jël avance bi ñëw jaakaarloo ak moom jël leen avance bi ñëw bëri mbër mi mi ngi nii di leen jox di daje ba beneen yoon ziar ziaraat jàngeen jëf sama gars yi ak cëmbër waaw métti non métti